waaw ñu ngi fekk euh, asu madame Diouf ñu kon laaj euh, marché bi tey ni mu deme marché bi tey ah macha allah bagage yi bari na kenn ku ci nekk rek li nga tollool ngay jënd rek daal di dem defar ba mu baax. am na seen naataangoo yu wax ni euh, njëg gi dafa yokk. waaw yokk na moom quand am na yu ci yokk mais am na yoo xam ne prix bi changé wu. waaw pas tellement nag taxu ko cher mais séntu woon nañ ko quand ndax feet bu nekk rek noonu lay demee na nga yokk bi nga ko. mais loolu jaaduwul seen diggante yi ñaa ay client ngeen de. ah waa gis nga ñoom fu ñu jaar teg ci ay 200 ay 300 mais garaawul dañ koy dañ koy def sarax rek. teguñu ko fenn dañoo xam ne événement la rek nit ñi dañuy soxla dañuy obligé ñu ñuy jënd par la force moo tax ñu koy yokk. ne euh, ndugg yi moom ren moom dafa cher trop franchement prix yi mënoon naa gën a abordable. est-ce que mën nga ñu gën a détaillé lan ak lan. Euh, genre kaani salade tomate euh, persil kaani poivron jaune rouge. souvent yooyu la ñuy gën a soxla mais prix yi moom dafa augmenté. waaw dafa augmenté waaw. soble bi ak pomme de terre dañ koo yokk. loolu da ngeen am comme. lépp lañ yokk. lépp lépp lépp yëpp lañ yokk. kaani salade soble pomme de terre lépp lépp lañ yokk. yokkuñu ko de dañoo jënd lu seer. ah waaw dañoo bëgg xaalis dañuy jaay yokkuñu ko de prix normal rek. waaw oh, euh, bi ndax mën nañu euh, mën nga ñu ñëwal ci euh, prix yi nga xam ne moo am ci marché bi fii ci Castor. waaw prix soble soble bi moom instant nii man maa ngi jëndee 310 325. di jaay ñaar di jaay 400. pomme de terre. pomme moom pomme de bi dafa manqué moom mais beneen bi moom quoi comme bii beneen bi moo mais Maroc boobu ñu ko jaayee quatre cent cinquante instant yi parce que fi mu nekk nii ñun bu ñu sañee mu jar a jaay mu gaaw bu dafa cher nii nga jaay quatre cent quatre cent cinquante doo mën a du gaaw man suba ba léegi li ay deux sacs quatre sacs ngay détaillé te bu trois cent trois cent mu nga jaay dix sacs quinze sacs man ma jaay ay barkoor kilos vingt sacs trente sacs mais instant yii doo mën a détaillé loolu quoi parce que dafa cher moo ta léegi ñaar saa ngi jaayee ba. jaay ay tool ay dix sacs pour détaillé. avant ñu dugg ci koor gi. waaw avant avètement bi dugg si nii jaar na fi 7500 xam nga pomiteer bi day door a yegg si Maroc bi moo fi nekk ah ak beneen pomiteer local bi fi nekkoon boobu local bi moo doon jaar si 1500 7000 léegi nag bi am porte bi jaaree di ñëw di jaar 8000 bi ñëwee di jaar 8000.